damaa ñaanoon sëriñ Aboubacry Thiam mii bi mu tolloo ci yëkkati kàddu ma ne nañ ko may ba sëriñ bi ñëw mu àggale kàddoom ndax daa tàmbali woon di wax ci diggante sëñ Mbay Jaxate ak sëñ Mudu Moustapha sëñ Mudu Moustapha ngi nii sëñ Pape Thiam yow la ñuy jox kàddu gi sëñ Aboubacry nga àggale kàddu yi nga doon wax ci diggante boobu ma wax léegi sëñ Mudu Moustapha ngi nii Serigne Mbaye Diakhaté lañu wooteel bés fi kulli sayrin wa fi safar ay def ci sang ndaw lu dul ndam junni wecciwu doxoo fi ak ñàkk bopp ak ñàkk fulla doxoo ba tey fi ak doya deeku manki galliwu ba ngay ndawit lañu daa jortoo ko siinu ci yow la ñépp seeru ci sang mag barke teggiwul sëriñ bi mas na ne cas ab junni jox la ko bis nga fab ko delloo ko moo tax léegi lëf tëwu la ay boo fa boon junni boobee lekk lëf du ko jar alhamdulillahi hamdi wenni wurawu la koo xam ne delloowu loonub junni tey mi ngi lay yalwaa ñaani ndimbal moo taxit meru la kuy bañ nga jiitu ko loole muy bañay xalaam jiitoo nga faw lu dul canta ngërëm waru la yaa jiitu yaa kiilu yaa raw ñépp yaa mata ñee yaa féete kaw ña kaw buurub arasu loru la lor yëpp yal nañu lay teggee ka teggi sa ñooñ ngay mucc kay muccule kay baax kay xarala di ŋàbb say jata ak say dàll rek kanu war tey sant kay santu ngir ndam lépp topp na la bamba ma takkalu sàllam Moustapha ne ma cas na teg fawu ca kaw maa war di sant ba tas maa di sant ba tas ngir lépp lëf lu mu daa ngéejoo ka dox di mébét am naa ko ñàkkuma tus man Moustapha man ne sojjet teg ca kaw bu rafet ma xëy ne dang ca kaw nib jant ñépp ne sas nee naa ko yow xes nga mbooloo mi kenn du la jot yoral la say jata nga ka santoo ko sant ci des nee naa ko tey yaa di góorit aw jigéena fi des kalay wanuk das du man man nopp du ma das nee naa ko xaalis bu yor xaalis nga yit di wurus wu yor wurus tey ku ñuy rus nag ku yor ku ñu rus nee naa ko yit ba sëriñ Tuuba xëyee bu dul ko nag yow asal bépp murit ne maras nee naa ba nga ne cas waaje denc ba ñëw ku nekk xam na ne yaatee wuntinam ni tërës ne naa ko dundal te wér sag dundu am na njariñ yaate julit bu ne rus yaatee julit bu ne rës ne naa ko yaanu musal ciw ay te yaanu mosal jàmm mag njariñ yaanu tee bon mbakke yaa jara gis xëy ci yow bëtë gën xëytaawu junni yu wér nu ñëpp yal na nu lay jox junni fa ka gis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 mooy li sëñ Ababakar Càmme tàmbalee waaye dafa mel ne sëñ Omar mottali waatoon na ko ba mu mat eh, sant dafa munta weesu sant ndax dafa am ku ma nettali ne sëñ Mbaye ko doon waxtaane waa joo xam ne eh, mutasawif la boo xam ne dafa nekkoon ci àll bi di jaamu yàlla ba mu yàgg lool ba at ya bari suñ borom yebal ci moom ndaw ne ko nee ko dama bind dama koo bind ca sawara ba noppi ne mu ne ko nee ko man sant naa ko gannaaw yëg na ni maa ngi fi doon ko jaamu gannaaw yëg na loolu sant naa ko ca loola na ma yokkal nag sama jëmm ji ba mu fees dell sawara ba benn jullit dootu ca xaj jullit ñëpp demal demal demal àjjana ma sante ko loolu bi mu demee wax ko loolu mu delloosi ko ne ko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 ndax nangul nañ ma déggal nañ ma. su ma jekki woon ba guddi ku ma ci ne carte téléphone ne bu fi fanaan da fanaan bitti boo mënta ñëw waaye danga fanaan bitti fa nga nekk moom da nga fa jógee. kon nag loo ma ñaanalal doyut te loo ma yéene bëgg ma ko ñaanal sàkku naa nga ñaanalal ma ko nga ñaanalal ma leen ko waaye nag yow de noo ngi lay ñaanal cër yi Serigne Touba di séddalee bu la ci kenn ëppale. cëri Serigne Mourou Moustapha yëpp yàlla nañu ko boole teg ci sa loxo te yàlla bu la ci dara te yàlla bu la ci dara dara dara dara manqué te yàlla na saw fan gudd lool te ànd ko wér li nga yéene ci liggéeyal sama am yéene ko ci liggéeyal sa way juree yàlla na yegg ci say loxo tan ànd ko ak yow lii daal yéene nañ ko mooy li nga xam ne moom lañu ci bëggoon tënk ñaan googu daal lañ la yéene waaye sàkku ci yaram sàkku ci yoon nga ñaanalal nu suñu mbokk yii ba leen dara gàllankoor nañ man te bu leen dara gàllankoor nañ am nañ wér nañ yor ndax murit kat wér ak yor dong moo koy jariñ ganaaw dañ koy liggéeyloo tam war di joxe addiya daa war a wér ndax mu mën a liggéey daa war a yor ndax mu mën a joxe kon yii ñoom lii daal buñ ko manqué ne nañ am nañ wér nañ fi yàgg lii daal ñoo koy sàkku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 sant mi ngi leen di gërëm di bég ci jotaay bii di leen xamal ne ñëw na fi tey ni ko baaxoo ngir wama alal xalafi illa an yasuuna asaara solof ku wuutu ku ne sàmm ndonol ka nga wuutu rek mooy sab liggéey bis bii nag dafa bokk ci bis yi nga xam ne jantub tey sëñ Tuubaa da koo jagleeloon xuru Mbàkke jagleel ko sëñ Abibullahi Mbàkke mbokk mu tedd mii ci penc mi teg ko ci loxo Serigne Mbaye Jaxate saxaabaam ba soppeem ba xaritam ba moo tax ah, te ku ne xam ne ne Seyxul Xadim léppam dafa dafa màgg daraam tuutiwul kon bëccëgub lëm bu ko jagleelee xur mbàkke saa bu yëg seetee way dono yi dañ koy war a yeesalaat fàttaliku ko ñoŋalaat bis ba te xam ne la mu ci ay ngëneel ak la taxu mu ñëw fi du lu tuut kon bis la boo xam ne feesal na xuru mbàkke nandal na xuru mbàkke ak ku ñëw xuru mbàkke bis bi mën nga mën na laa màndal ci ndoxum ngëneel ak ndoxum cofeel ak dàggay ngëneel loolaa waral sëriñ bi teew fi tànki sey Xadim yooyee moom la ñëwal magam Cheikh Muntaxa mi sëñ Tuubaa boole ko tànk Cheikh Moustapha ya mu ñëwal ko boppam moom i Cheikh Moustapha ñëw teew fii ci bis bii ngir yeesal tànk yooyee ngir jëmmi sëñ Touba ja jëmmi Cheikh Moustapha ja waaye ngir jëmmi sëñ Bay Jaxate nee na mi ngi feddali loola ni ko sëñ Omar Kan Balla Aysa Muri Saadi waxee léegi dëgg la am na ngant am na it ndaw waaye bis bi su ko mënee bu ne mu teewal boppam moo ko gënal ndax xam na bis bi xam na fii xam na sëñ Bay Jaxate xam na it ñam ko si xëloon muy maamam ju tedd ci Sayxul Xadiim ak way juróom wa Cheikh Moustapha al Karim xam na it fii mooy fan moo tax ñëw gi moom saa bu ko mënee rek moo koy gënal kon mi ngi ànd ak yéen ci bis bi di ñaan lafi fi Sayxul Xadiim sotti woon ak lam ci yéene woon ci bis bi suñu borom yeesalaat ko ci dëkk bi yeesalaat ko ci waa dëkk bi yeesalaat ko ci mboolem way fekke yi ñi nga xam ne wuy si na ñëpp yi woowee sëñ tubaa doon dox ba ñëw fi tey nee na ku fi ñëwaat tey jii yal na la ci suñu borom siddaat lu feesal say dab ba ëllëg doo gis lu dul ndax kat fukki at yeeg ñaar juróom ci njaareem bëccëg bu ci Seyxul Xadim génn këram googee ñëw tukki xamuñ ci lu weesu fii kon bëccëg la woon boo xam ne ci bëccëg yi la bëccëg la bu kenn wërtu fàtte moom nag ngeen daje nii di ko màggal di ko yeesal di ko fàttaliku te di ko béggee mat na ko sëkk nag kon sëriñ bi nee na mi ngi ñaan maamam ju tedd ja wuy juróomu tedd wa ak sëñ ba jaxati seen saaba ba doonoon xarit Cheikh mustafa di soppeem jaxasoog moom sëñ Tuubaa boole woon leen ñoom ñaar jël loxoom teg ci loxol kii boole leen ñoom ñaar daanaka mu meloon na rek Moustapha ak Babacar kon loolee rek la sëñ bi feddali si waat di ko gën a yeesal di gën a feddali kóllëre gi ak yéen di gën a feddali cofeel gi ak yéen yàlla rek ko fi indi ak samm ndono li ak sàmm li fi Seyxul Xadim bàyyi kon nee na sëñ Jaxate sëriñ bi nee na nga nuyul ko sëñ Abdou ak njaboot gépp mi ngi lay sant bu baax nag di leen seeral cant gu mu sant sëñ Mbaye Jaxate mii ci taxawaayam ak pëstéefam ak ku dogoom ak topp tànki way jur ya ak maam ya yoon woowee sëñ bay jaxate xàlloon jëme ko ci Cheikh Moustapha sëñ bay mi mii yeesal na ko ci moom dara desu ca saa ne at mi yëpp saabu bu safar ñëwee dana dajalewaat mboolem ñi aju ci moom yëpp di góor di jigéen di mag di ndaw boole pas-pas ya ànd ak jëmm ya ñëw fekk ko Daaru Xudoos ci bayti ne ko sama jëmm a ngi sama ñëpp a ngi sama lépp a ngi mën a ces tegal la ci sab loxo yow Moustapha loola at mu jot mu def ko mi ko koy nangul nag bu wér moo ñi mu àndal ñëpp di leen seeral ak cant ak ngërëm ak ñaan suñu borom faj aajoom ak képp kum àndal ak képp kum bokkal ci daraja yi yonente bi xurmay Sëñ Tuubaa barakat Cheikh Moustapha xurmay alquranul karim mi ngi koy fedd bu baax di ñaan nag jotaay bi yàgg am ñi ko teewee yàgg koo teewee ci daraja yi ku tedd kookee ak ku tedd kookee ak ñu tedd ñañ àndaloon wasalaamualeykum wa rahmatullah salaatu llazi fi kulli sayrin wa fi safar hamaani halal maahin maal absa wa safar في كل سهر وفي ظفر حماني ألا ماهن ما الأبصر السفر